sedd ñoo fa nekk ñu tuddee ko alxarra maanaam volcan la volcan bu fay foofa la woon ba ñu fa ñëwee ñu am ñetti fan Medina yoo xam ne benn jigéen muccul ñu rey ñu ñu defanteeg jigéen ñi rey seeni jëkkër ak seeni baay ak seeni doom ak seeni càmmiñ ca déwén sa junney xaleel juddu ba loola paasee juróom-benn fukki at mu nekk juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent gannaaw bu fi yonent bi jógee imaam Malik judd kon hadiis yu bari yii ñuy wax mënta am te alxarra am alxarra dañoo jeexal képp koo xam ne ku doon wax ci yonent bi la ku doon wax ak moom wala mu fekkee ko wala mu fekkee ku ko fekkee leen fi rek moo mucc mooy alxuraan te li ko musal mooy am na bu nekkoon Bagdad am na bu nekkoon Yemen am na bu nekkoon Misra yooyu ci lañ jëlee pour alxuraan man fee ne te yonent bi dafa tere woon ñu bind hadiisam loolu nag bu amee dana tax yi gaa yi wax nga mën cee sikk ndax ñoom yëg nañ hadiis yi waaye yëguñ la tax hadiis yu bëri yooyu mënta am waxuma ne hadiis yu wér nag amul waaye six cent mille bi c'est pas vrai bu dee six cent am na waaw waaye bu ñu ca déggee ñetti zéro déet wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu